ci ñu wax ne aussi li des ci waxtu bi desul jeex na. daanaka ah, ci tàggatoo la ñu mooy dégg nekk nii waay. nee naa leen dañoo bëgg a yokkal Macky Sall 6 mois ñu ngi nii toog amul ku ne ma waxoo dëgg. amul ku ma weddi. mais loolu amul mais amul. amul boo déglu ñu tontu li bu la la tontu nañ la amul de facto. boo dogee sa kàddu bu leer mandat xam nga lu ñu intéressé. stabilité wu ah, Sénégalais yi. Mayoro ko sérénité wu Sénégalais yi ak jàmm Sénégalais non da nga ñu accuser dafa yomb seen yooyu ngeen di bàyyi. lii technique médiatique. déedéet du technique dafa lay bàyyi nga wax mais non non bala ma lay bàyyi nga wax danga may bàyyi ma préciser li may wax. non doo préciser dara sama temps bu ma neexee doo wax du ma ko yàq kilifa nga ñu ngi lay seetaan may nañ ma seetaan. ayca yuuxu mais nañ non amul problème man du ma yooxu bu ma la bëggee tere wax mën naa la tere wax mais du ma ko def mais di nga ma bàyyi ma dégg ma ma ma léegi léegi léegi accusation yi ngay def tegoo ko fenn waaw d'accord léegi loolu leer na ok d'accord léegi wax donc président Macky Sall wax dara taxaw bi li mu wax mooy mandat 2 avril lay jeex ñëpp d'accord mhm. ni day rendre le pouvoir le 2 avril bu élection donc bu dee de facto li ngeen ko defal dafay war a ko defal ay arrête waay yow. mais mais bàyyi ko may eggale Mayoro soo deful doo defee nii aussi. boo génnee yaay jàkkaarloo ah, man man Sénégal laa def man ba may politique politique leen. léegi nga def te kenn du ma vaar. nañ ma vaar kenn du ma vaar. de facto 6 mois ci jëm te nee naa la proposition 6 mois la rek. rien ne les empêche ñu def ko un an lu tax ñu jël 6 mois 3 mois 4 mois. 8 mois mais fu ñuy jaar article 27 bi ngay laaj ko li ma la bëgg a wax mooy. rafetal njort amuñu ci yoon. rafetal njort yoon yoon téyew leen. xam nga nit ki yoon ci af ci ci àddina constitution da lay tënk lii kenn tënku leen ci délai ñoom ñooy tànn 3. mais ndax lu legal la. 9 12 4 mois 8 mois. ndax lu légal la 2 ans député am na léegi article 103 xam nga question laa leen posé dafa ni mandat wu président durée xam nga fii dugguñu ci nombre mandat dafa ni durée bi muy juróomi at kenn du ci yokk benn fan benn disposition boobu kenn mënu ko réviser mooy révision constitutionnelle bi ñu def mu teg ci ni. beneen article li nga wax fu ñu ko bind. article 103 dañoo bind ne kenn du ci yokk benn fan. benn lu ñu ko bindee. la durée la durée bu ñu ko waxee ñu ko waxee. la la révision constitutionnelle. waaw lu ñu ci lu ñu waxee. ñu ne la durée du mandat. dañ koo génne ci lu ñu mën a réviser. kenn mënu ko réviser ñu teg ci ni clause d'éternité article boobu ni mu kenn mënu ko réviser moom ci boppam kenn mënu ko réviser. muy double protection bu ñu ko jox léegi kooku dinañ naa la article 31 beeg 503 bi. léegi may mais président aussi ñun situation exceptionnelle bu jotee. xoolal kenn ma assemblée oui ma assemblée bu xoolal dafa am ñett. te bu wootee amul président dañ ko may mënoo ne monsieur le ministre bàyyi ko mu terminé boo ko bàyyiwul mu terminé du ñu du ñu waaw mais mais mais après day ñëw ci yow parole bi non mais non leen ko mu terminé non leen ko mu terminé d'accord mais Amadou égaleel euh, le report boo gisee report bu ñu falagul kenn ñu génne ko ci loxo président parce que président est souvent candidat moo tax ñu dénk ko conseil constitutionnel ni ko hmm. yow yow yaay voté yow yaay xool dëkk may nañ la yow président sañ-sañ décret bi nee na nga tànn bis bi ñuy def élection présidentielle cër waaye nag boo paree lépp conseil constitutionnel lañ ko dénk xam nga lu tax candidat la bu la neexee nga dem ba xam ni sondage génn na dañ lay gagné nga reporté te lii dama ni la c'est un rapport qui e basé sur des soupçons rapport commission bi biñ sant pour mu say sax léegi nag dama lay wax lan la tey candidat yi nga xam ne yëpp xam nga nee nañ recevoir na ñëpp ñi mu recevoir ñëpp kooku c'est des procédure de consultation. Mm-hmm. droit danaan la parfois booy jël décision consulter diw. loi moo ko sant mais diw la muy wax. mais dina ko sant. daf la sant rek nga consulter. voilà munoo ko bañ a def mais munoo ko bañ a def. lañ lay bindal. munoo ko bañ a ak la ngay wax ak ñoom tënk la. waaw mais munoo ko bañ a def. wax nañ la def na ko xam nga man dugg ma ci loolu. voilà mais munoo ko bañ a def dama la ñëwal ni la. waaw liñ décidé mooy. Mm-hmm. benn seen rapport bi c'est pas basé sur un rapport d'enquête. c'est basé sur des soupçons. mais loolu wax nga ko loolu wax nga ko loolu ah, tegaat ci non Mayoro bàyyi ça n'a rien à ñu tegaat ci ni. li ñu bëgg Amadou euh, Mayoro yooyu ay affaire bi ah, xaaral monsieur le ministre après ci yow laay ñëw bàyyi ko mu te plaît. c'est la. Ah, mais allez-y li ñu bëgg def. waaw c'est basé sur un décret boo xamante ni mënul liñ ko sant. troisièmement ñu ne leen la ngeen bëgg a déposer assemblée yokkal Macky Sall loolu munul nekk. <clears throat> constitution da koo tere léegi nag li ñu décidé ñun mooy comme que décret bi ngeen di wax dafa arrêté élection yi tey c'est pas votre vote parce que tey la Macky Sall arrêté élection yi xaarul seen décret seen révision bi dañoo décidé candidat yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la conseil constitutionnel reconnaître campagne ni décret boobu amul validité mm-hmm. benn mm-hmm. ñaareel nee nañ suba dañuy def campagne ku nekk day def caravane boppam ñu daje pont Saint-Lazare diñaan ñaan sénégalais yëpp ñu continuer seen campagne lu tax conseil constitutionnel rek. la ñu jox sañ-sañ bu nit ñàkkee bakkanam ci deux tours. jéem leen ko waaw ba tey. dina leer parce que lii li ma la wax mooy nit ñi dañuy campagne parce que le décret bi ngeen bëgg mu suspendre ay élections xaarul révision constitutionnelle bi am da koo jiitu donc amul validité amul benn validité. kon da ngeen kabaare da ngeen wote tamit da ngeen wote mbaa da ngeen dinañ saisir conseil déglu ma dinañ saisir conseil constitutionnel <laughs> ñaar fukki nit ñi nga xam ni ñoom candidat lañ bi ngeen di déglu dafa waroon a déglu recalé. boo demee ba déglu. ñaar fukki eh, ñaata candidat yi nga wax. ma dama ni la léegi a ñaar fukki candidat tey la fa nekkoon déglu ma rek. kon Amadou Ba ci la bokk. oui ma may ma ma ñëw. ña fa nekkoon tey jii sunu candidat dafa leen jox kàddoom ne day bokk moom ci loolu. ña fa nekkoon te ñëw. non waxal da leer ñaar fukki yi nga wax ndax sunu candidat bokk na ci wala bokku ci. c'est que gis nga xam nga man. damay gëm xam man lu tax. damay gëm man damay gëm ne ay kilifa dañ leen di seetaan suñ paree dañuy xool ni xam ni lii du ay comportement léegi déglu ma rek dama ni. ña fa nekkoon décision bi ñu jël. mooy suba dañuy def seen dañuy def seen i daal di continuer seen campagne. ñëpp wala am nañu bokk. le décret bi Macky Sall génne ni. parce que la moom mais moom xam nañu xam nga ni vingt moom moom ma am. mais fu ma lii dina ko xam na ko su ma xoolal su ma dafa bokk ma limoon na Amadou Ba bokk merci pour la précision ñi ñëw ñi ñëw te ak ñi nga xam ne joxe nañ seen kii parce que mënuñu fi woon nekk li ñu wax dafa leer dañuy continuer seen campagne dinañ saisir conseil constitutionnel décret Macky Sall boobu fu mu génnee bopp dinañ ko yóbbu chambre administrative parce que amul valeur juridique. d'accord pendant ce temps ñu wax la ni la dañuy continuer suñu campagne. li ngeen def nag na sénégalais xam ni da a yokkal juróom-benn weer Macky lii mooy le deal. te deal bi su ngeen ko bàyyee di ngeen xëy mu nekk ñaari at. Pape d'accord merci Pape ma yokkale benn non non non may ma rek monsieur le